te li ci gën garaaw mooy ñu dem ba jël politique ak sport wax ni léegi ñoo nekk substitut ci wàllu religion wàllu religion te léegi politique bi nga xam ni moom lañu ni war na mën a nekk substitut nekk na léegi opium du peuple sport bi nga xam ni it moom lañ ko taf moom itam bëgg mu nekk substitut ci wàllu religion je ne dis même pas tous les sports sax mais même le football léegi sur le plan international boole nañ ko ci les armes de destruction massive ndax liy xew ci stade yi ñaata bakkan ay tëdd léegi kon y beaucoup de choses à refaire moo tax wax bi nekkatul ci fastabiqul xayraat wax baa ngi ci saariu ila magfiratin min rabbikum gaaw leen réparé gaaw ndax bu ñu reparewul ba sunu borom bàyyi lii ñëw mu ñëw jeex na kuy téye loxoom dootu fi nekk كان <laughs> <laughs> الله ليعذبهم جنب فيهم وانت it فيهم wallaay ndeysaan yal na yàlla motel yàlla barkeel incha allah tax na kon nag ñun ñi génération bi am nañu liggéey bu rëy waaw ndax ñi fi nekkoon nag li leen war def nañu ko waaw ñun nag ñoo war a taxaw parce que lii commencé Mali lii raam ci ñag bi la jëm te am na awliya yu nga xam ni ku seetaan ba ñu xotti seen xorma ñu vengé wu ci kaw ñëpp ndax la tusibanna alladina zalamu minkum xassa ba tax na kon nag bi ci gën a am solo ba gën a am solo mooy gis nga am ramb jamono boobu muy formé asma yi di leen yaraat ñu mu gën a tenir wax leen ko ñu bàyyi ci seen xel moo di ko amee majorité absolue wala nga amee majorité élargie dañu war a limiter sa responsabilité xoolal ma loolu amee majorité élargie wala majorité absolue ba noppi ñu ne nañu limiter ses responsabilités loolu tax ñoom ñu tëral ya ñu tural ci xodóot yi ak marasim yi bu ngeen fàttali ko fii nii daaw Souleymane Ndéné ngi toog fii mook ma dikke ma wax leen ci qissatu yuusuf la ixwatu yuusuf wax wa nahnu usbatun bu doon ci sunu jamono euh, majorité absolue lañ koy firee mais ba noppi ñu perdre ñu ne yàlla lu tax ñu am majorité absolue ba noppi perdre mu ne parce que yéen a looloo tax sunu borom bi mu jëlee xam-xam yooyu yëpp nag ak la ca jóge mu jox ko Adam loolu tax allama Adama al asma pour bëgg nag moom it mooy exercer ko mais fu mu koy exercer parce que yegg si ne tuuti tuuti këram tas taawam rey ka topp ca moom caat bi ñëw chiffre te fekk ñetti secteur rekk fa nekk secteuru agriculture moom la Qaabil yoroon euh, secteuru élevage moom la Haabil yoroon donc Caïn moo yor agriculture Abel yor élevage caat bi mujj ñëw chiffre bëgg def commerce mais nu muy defee commerce parce que produit yi waroon jóge ci agriculture bi ak ci élevage bi bloqué na loo tax ñu mujje taxañ yëf ya sànni ko noox mais moom it alfa sanatin illa xamsina aman junnay at junnay at ku ko am di sonn ci ay nit pour bëgg ñu nangu ñu lànk ba ca juróom fukk yu mujjee muy yàlla yërëm ko sax mu soog a commencé di gis tuuti ci résultat junnay at walaqad arsalna nuuxan ila qawmihi fa labitha fihim alfa sanatin illa xamsina aaman pour wax la arab bu alquran kenn xamul lan la alfarqu bayna sanati wal aam waaw boo gisee mu wax sana rek xamal ni coono la bu waxee aam nag mooy lu am na lu fa jot a am itam mu commencé xam ni agriculture kese kese ak élevage kese kese ñu bëgg ci dugal commerce bi kese kese nit ñi évoluer nañu moo tax mu commencé créer chambre de métier waaw moom menuisier la woon nag mu tàmbali yëf yi waaw mook maçon yi pour ñu commencer ci métier yi di ko organiser par ndànk-ndànk c'est très important ñu jare déglu la moom itam mu jël ay njaboot yi boppam jox leen héritage bi tas leen te dañu commencé di créer continent yi kenn ku nekk nga am foo jëm pour jéem a seet naka ngay orienter ña fa nekk mais booba barewuñu ndax ñëpp ñëpp dee nañu ca tuufaan ba donc juróom-ñetti fukki nit ak ñaare ñëw ak moom ci ci euh, bateau bi ak rab yi ñoo àndal pour wax la ba ñu demee tuuti itam fameem yi commencé ñoom itam kenn ku ne bëgg ñu gëm ni réussite bi sa réussite la xëccoo boobu yàlla it xam ni boobu du marché moo tax ñu taxañaat yëf yi sànni ko Daawuud caaxaan yi doon dox fële nag tax yépp di gàllankooru yàlla wax ceeg moom indi inna jaalnaaka xalifatan fil ard boobu côté mystique bi taxul parce que boobu nekk na yonent ba noppi kon côté politique bi moo tax moo tax inna jaxal naka xalifa tan doo ko firee xalifa administrateur nga koy firee xalifatan fil ard mais faxkum bayna naasi nit ñi bil xaq yaani bil adl dirigeel nit ñi te teg ko ci justice mais une justice bu ko juste amul jaru ko wala tattabi ahwaahum foofu la sew-sew bi nekk wala tattabi ahwaahum bul topp seen influence c'est très important bul topp seen influence ñoom ñi nga ñi nga war a administrer mais ñu seet ni wala tattabi ahwaahum alhawa ñetti baat yu kole la kon hawa mu ngi jóge ci contact looloo tax ñetti baat yi kole mais nan lay def ba du am contact ndax xalifa biñ ko tudd it lettre yu kole la naka lay administrer nit ñi te du am contact ak ñoom te buy am contact ak ñoom influence bi dugg mu ni yàlla nu may def nag mu ne ko noo tudd mu ne ko Daawud mu ni ko defal noonu mu ne ko luy loolu mu ne ko gis nga sa tur amu ci benn lettre bu collé ba ca des kon ñi ngay yor di leen responsabiliser bu leen bàyyi ñu tafu la ku ci ne sànni ko fa nga koy sànni dox ko la mu war a def mu def ko nga superviser jeex na ne ko jëlal sa tur rek yàlla defe la mu def moom itam war a dem Suleymaan ñëw wa warisa Suleymaanu Daawud moom itam ndeysaan xër ga tax moom itam ndeke nubuwa giñ ko jox rek doyu ko tax mu ne rabbi ghfir li wa hab li mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab di ñaaneti nguur te nubuwa ëpp doole nguur moo tax xamoon na ni xel mu gàtt la moo tax mu ne rabbi ghfir li ah li may wax de xaw ma sax ndax noonu la déet waaye <laughs> boo sañoon nga may waaye yonent bi moo honnête bi ko yàlla nee ndax ma jox la nguur mu ni ko Suleymaan ñaan na la la mulkan la yambagi li ahadin min baadihi ba noppi te man ñëw naa min baadihi kon pour sagal ko du ma war a ñaanati nguur pour wax la hmm? mais Suleymaan it topp yëf yi topp yëf yi topp yëf yi ak façon bi ko ko yàlla may ndax mulkan la yambari li ahadin min baadi yëf yi ëpp na ba moom it mu dem commencé fàtte côté nubuwa bi yàlla simulé coup d'état wa alqayna ala kursiyihi jasadan benn suusi mu ñëw rek gis ko toog ci kaw trone bi mu jàpp ni yëf yi changé na mu dof taf bopp bi fekk yàlla ko fa sànni rek pour seetlu ko mais li ci neex yàlla mooy summa ana bi prise de conscience bi mu def ba xam ni am na luñ koy rappeler à l'ordre mu tax kilifa bu mu mën a doon lu ko yàlla mën sedd war nay am ruq bu muy dellu di seet ndax teg na tànkam fu mu ko war a teg wala déet ndax summa anaab ji soxna tudd naa ko léegi soxna mu xayri tabarakallahu di magu xale yi tabarakal la ngi koy nuyu moom itam ak ñi mu àndal ñëpp fa tabarakallahu nuyu soxna Nogay mu jógee ca Maroc nee na daal Nogay la bëgg a tudd waaw ma nga ca jàngum wolof ma nekk waaw léeg-léeg mu ni ma ngi fi ma ngi fi ma ne waaw kay baax na de waaw kay <laughs> na nga def mu ni ma ngi fi ma ngi fi ma ne waaw ba tey baax na de c'est très bien ngay jàng wolof bu baax a baax waaye baat yépp nag bii mu ci njëkkam man mooy mooy mooy jërëjëf jàngal na ko seen waa kër yépp nag bu ñu téléphoné naan jërëjëf jërëjëf ba mu ju ñu naan jërëjëfati ma ne léegi mu baax de <laughs> lay ndeysaan mais am na solo ndeysaan li koy indi nag nee na dafa mës dem fële ca Mbuur xawma ca Saly Portudal la xawma nee nag mu dem foofu dem ci plage bi nag ñëw gis ñuy jaay noonu mu gis ci benn jigéen bu nga xam ne ndeysaan def ko impressionné ma nga sol camisole ba mu sol musóoru mu impressionné ko nag mu laaj ko noo tudd mun ko nogay laa tudd mun ko mayit nogay laa tudd waaw <laughs> da di ànd ak moom ñu musóor ko mu def ak moom photo ci la jóge ba léegi ni nogay la tudd waaw lay ndeysaan moom moo invité woon ñoom soxna ma ñu dem Maroc at bi passé ñoom it ñu invité ko pour mu ñëw fekk si yëf yi ndeysaan mu mel ni itam wax nañu ni maam Cheikh Ahmed Tijani ah, bu sëtu sunu lépp ah, ak maam Khalifa Babacar ak ah, soxna Fatima mi seen yaay dama leen di wax ni leen soxna Fatima mooy seen yaay di seen seer waaw tabarkalla soxna Ndey Kumba Jéen soxna Amina Fall soxna Maymuna Sow ak sama artiste bopp bi Serigne Ndiaye Gonzalez. wallaay dëgg la <laughs>